véhicule de marque Ford a pris feu à Mbacké à hauteur de la pâtisserie Borom Dendé. Aujourd'hui, le samedi, à cette heure-ci, donc vous voyez les, les flammes. La population est sortie essayer de maîtriser le feu, mais en vain. Donc vraiment, c'est trop désolant. Euh, le retard de l'arrivée des sapeurs-pompiers est bien noté. alors nit ñi ñu ngi nii taxaw foule bi jàkkaarloo ak oto bi di tàkk impuissant par rapport au feu vraiment c'est trop désolant le véhicule est de est ce que donc nit ñi ñu ngi taxaw mis sur le regard impuissant de la population ñi ngi xool mais mënuñu ci dara sapeurs yi je ne sais pas si est-ce que woo nañ leen ou pas mais s'ils sont alertés leur peu en retard alors oto bi ñun ñi koy gis nii mu ngi tàkk bay jeex vraiment rue bi dañ ko vaqué kenn taxaw fi nit ñëpp a dem bàyyi ko noonu mais euh, sur le plan matériel oto bi tàkk na ba jeex mais sur le plan humain il y a plus de peur que mal parce que amul benn dégât humain donc doon doon jëlal reportage bi seen xarit seen ma doon moom ay kase 28 pro. à l'instant il faut se maîtrise.

waaw